Sénat dafay superviser di contrôler maanaam ñi liggéey ci élection dañuy topp di xool ndax ñi ngi def seen liggéey ci ñi ko yoon tëral bu amee fenn fu am rëq-rëq dinañ fa dem ñu xool rëq-rëq bi ak ñi nga xam ne ñoo war a def liggéey bi ñu jubbanti loolu mooy suñu liggéey ñun moom lañ koy bu ñu ñëwee ñun membre Sénat yi passation de service bi maanaam kenn joxe bu ñu lenge yi bu ñu joxee lenge ñu tiim dossier bi ñun ñëpp ñu xool lan lañ ko war a def ñu def ko ñu ko yoon waxe lenn bi naa leen ko képp kuy doomu Sénégal nga am at bu la may pour nga vote te nga bindu ci liste ci liste électorale bi nekk ci fichier dinañ fexe ba ñëpp ñi nga xam ne dañoo war a wote yem wote ci jàmm dinañ fexe tamit ba képp koo xam ne candidat nga te yoon may la nga nekk candidat vote bi su jeexee li nit ñi fas yéene ci ñu ëpp ci nit ñi ci ñu tànn dina bëgg nañ jour moom résultat yi ñuy wax ànd ak tànneefu ñu ëpp ci Sénégal yi dama ni loolu képp ku nekk Sénégal te bëgg a samp si ndënd te yoon may laa nga samp sa ndënd di leen fexe ba